asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yi ñuy seetaan euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di leen balu aq di balu aq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu bokki jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ak fu ñuy mën a toppe ci mbooleem yi nga xam ne fi lañ ñuy toppe yëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci émission bi nga xam ne ñu ngi koy def muy émission gàggantiku te di ko jaar ci MK TV muy Muxaddamatul Xidma TV muy seen bi nga xam ne mooy seenu daayira Muxaddamatul Xidma bu Grande Mosquée de Touba wala ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp tamit ci CMT TV muy Grande Mosquée de Touba euh, ci seen émission bu am solo bi nga xam ne euh, yittewoo ngeen ko muy émission gàggantiku dañ ci dalal ay borom yi xam-xam. yoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom ñu ñuy gàgganti ci mbiri diine lu ñuy jariñ ci suñ dund gi ak lu ñuy jariñ tamit ci suñu jaamu yàlla euh, ñu koy ànd ak euh, borom xam-xam bu mag sëriñ Mbàkke Abdourahman kon ñëwaat nañu fii ci Daaru Salaam Ndaam ngir ñëw ngir fas yéene gàggantiku ci moom euh, ngir mottali laaj yi nga xam ne bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñu ngi koy envoyé di ko laaj su ko defee mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ñu ci bëri danañuy laaj ci ndax émission bi dafa am group wala dafa am kii wala wala ñu leen di laabiir rek képp koo xam ne bëgg nga émission bu ñëw daal nga jot ci moom da ngay abonné ci MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV soo ci abone incha allah le 9 bu nekk ak le 23 bu nekk émission bu bu bu rot rek dana ñëw ci sa téléphone su ko defee ñi ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. Euh, kon sëriñ bi dañ lay jébbal kàddu gi nga nuyoo ak mbokk yi su defee ñu tàmbali laaj yi aouzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jataay bi di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru Sha'ban di leen ñaanal jàmm yi àdduna ak àllaaxira de sàkku ngeen ñaanal ñu ko aussi yéen ànd ak yéen jotaay bi nañ baaxoo incha allahu euh, jërëjëf sëriñ bi ñu ngi nuyu tamit sëriñ Abdul Xaadir Bousso ak sëriñ Mouhamed Ngom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñu la ñuy àndal ci wàllu xarala gi. kon sëriñ bi suñu laaj bu njëkk tey kii dafay laaj mbokk bi dafay laaj mu ne ndax def na asakaal lu aju ci wàllu furwe ak ak yu ni demee ak ak yu. yu verte yi daal maanaam yi nga xam ne daal ay ay fawaakeex la ndax euh, def na ko asakaal wala ak euh, nuñ koy asakaale su fekkee dañ koy asakaal waaw lu jëm ci ay foyteef ak li ñuy wax ay lujum ci mazhabu Maalik de li ci mag ñi doon wax mooy asaka warul ci yooyu yëpp wax jooju nag am na ci borom xam-xam yu mujj yi ñu ci wax ñu hmm. leen déggin woo xam ne yu mat a bàyyi xel la hmm. buñ delloo ci jublug sharia jamono yi imam malik radiallahu anhu di wax na yooyu asaka waru ci boobu madina gam nekk yooyu amoon na fa naan waaye dafa mel ne nekku toon lu am solo lool benn daawuñ ci bay lu bari kenn daaw ko jëfandikoo ngir dund ñaar solo sa bëri wutoon lool ndax foofa duñ ay baykat yu mag lu dul tàndarmaak yu ni demee hmm. ay dex amu fa yu mel ne amu fa borom xaw yu mujj yi loolu la ñu wax ne buñ delloo jublu sariya mooy nit ki woomal jël ci alalam jox ki ñàkk bu ñu xoolee nag ñi bay yooyu tey mën nañoo jàpp ne ëpp alal sax ñiy bay mbay cosaan yi nga xam ne moom naka jekk dañoo waxoon ne asaka war na ci mhm. moo tax li gën a wóor daal yëpp di ci génn asaka moo gën a dëppoog jublu sariya mhm. ndax euh, bu ñemee rek ci li ma ngi doon wax foofu ñaari nit dañ dend kii bay tuuti loo xam ne bu noppee la cay génn lu néew la mhm. ñu ne ko asaka war na la kenn nit nekk ci wetam bay loo xam ne fukk ci na ko wala téeméeri ci na ko ñooñu ko asaka warul hmm. te ñooñu yëpp yàllaa leen jox xewal gi te asaka génne ko ngir sant xewal hmm. kon génne ci yooyu asaka yëpp euh, mooy li gën a lëng bu ko defee ne bu ci nekk dañuy xool la mu gën a jegeel ñu xiyaas ko ci loola hmm. bu defee na ñuy génn asaka loola ñu xiyaas ko foofu maanaam bu dee pomme wala wala banaana wala. booba ñu xees ko lujum yi dañuy xool raisin ak yu mel noonu. nga xam ne xeet yu mel noonu ñu su réewuñ loolu. dañuy génne raisin asaka ñu génne ko ci asaka. ñoom la ñuy méngale daal. waaw ku nekk rek ñu xiyaas ko ci la ku gën a jege. Hmm. nañ koy génne asaka ñu xool ko foofu. Hmm. waaw loolu mooy li gën a jege. jërëjëf sëriñ bi xam naa kon euh, beneen laaj bi ci topp mooy kii dafay laaj ba xam ndax ki nga xam ne dafa dafa réer dafa jekk-jekk rek disparaître réer lu yàgg-yàgg ba mu yàgg nag baayam daal di faatu ci ginnaaw bi mu réeree ndax kooku dañ koy boole ci ñiy dond walla nan la nan lañ ci war a doxalee. ci wàllu miraas xam nga kuréel di àtte yu bari moo ci aju bu fekkee daal ne ci réewum jàmm la réewum lislaam la jékki-jékki xamutu ci moom dara mhm. bu bàyyam faatoo wala képp koo xam ne moom war na koo doon ginnaaw bu mhm. faatoo dañ koy génneel ab cëram mhm. niñ koy defee nag dañuy xool anam yu bari la doon dañuy xool waaj yi dañ koy jàppe ko dund jàppe ko ku dee xool bu ci nekk ñi fi des di doon lu ñu doon képp koo xam ne moom ak ak dundam ak deyam li muy doon lenn la mhm. kooku dañ ko jox walla wàllam mot sëkk mhm. képp koo xam nag bu fi waa ji nekkoon day tax la muy doon gën a néew la gën a néew lañ koy jox mhm. ci des koo xam ne nag bu waa ji nekkee du doon waa ji dee mu doon kooku dañuy téye ab cëram bu toogee diir bi ñu war a toog am na yoo xam ne ñeenti at lay doon am yoo xam ne diir bu gudd fan la bu diir boobu jotee nag te xamuñ ci moom dara ñu ku dee. loolu hmm. lañ ci borom xool wax. Hmm. xam daal bu ñuy bàyyi cër bala ñoo bàyyi cër bi dañuy xool ndax ndax ndax ndax nit masalan tey nit mënoon a faatu bàyyi fii doom ju góor la moom. Hmm. dem réer. waaye euh, baayam am nay soxna am na ay ay ay mag rakk. doom ju góor ji tewee mag rakk duñ doon. soxna si nag moom bu fekkee ne mi ngi dund euh, su mun lay doon su fekkee doom ji dund mu doon rubox yooyu la ñuy xool si jox ko li gën a néew. dañuy def ñu téye ko ba xam. su fekkee ne ku góor a réer daal te fekk moo war a ëppale ci ci ndodd ci misaal masalan loolu dafa joxe misaal ndax bu nit réeree ci boppam mën naa du mën a doon jigéen. Mhm. ñi mu bokkal war a donn mhm. am na ci ñoo xam ne euh, ak teewaayam du soppi dara ci li war a doon. Mhm. bu dee ko mel noonu masalan tey ñaari nit ñu bokk ndey ak bàyyi kenn ka te seen bàyyi faatu bàyyi fi soxna soxna sumun si muy am du soppi mhm. maanaam ki feeñ ak mu ñàkk feeñ moo ci yam ko dañ ko jox sumunam waaye mbokk mii nga xam ne bu doom ji feeñee dañuy séddoo alal ji mhm. bu doom ji feeñut day jël lépp mhm. kooku li nga xam ne bu mooy li gën a néew mooy xaaj boobu lañ ko jox denc li ci des daal di xaar ba xam waaw buñ xaaree nag ba am lu leer ca waaye benn mu ñëw wala ñoo xam ne faatu na ginnaaw bi wala ñu toog ba diir bi ñu war a toog jeex te xamuñ ci moom dara ñu jàpp ne faatu na duñ ko limaalee ci miraas bi bu defee ka ñu waroon a mottali ñu mottali ko. bu dee ki nga xam ne bu feeñee day yiir ñëpp nag moom. moom laa wax ne la su boobaa. Hmm. ki nga xam ne bu feeñee du doon alal alal jëpp la ñuy téye su boobaa. xaar xaar am lu leer. ñaata at lañuy war a xaar. xaar gi mooy bu dee ci réewum jullit la dara xewut ñeenti at la ñuy xaar bu dee nag. Euh, ci yenn barab yi am na koo xam ne diirub gudd fan la ñuy xaar. diirub gudd fan mooy juróom-ñaar fukki at ak juróom. waaw juróom-ñaar fukki at bu fekkee ba muy faatu am na juróom fukki at. ñaar fukki sëriñ bi euh, laaj boobu euh, leer na leer na kii moom dafay laaj bu ma bëggee gën a leeral li muy laaj daal mooy mu ne dafay laaj lañ mooy atteb jullit bi nga xam ne maanaa jullit bu jigéen bi nga xam ne dafa am. ku ko bëgg waaye nag du jullit daa di daa di koy ñaan si maanaa xëy nañ ñu ne ko boo tuubee danañ la ko may bi mu duggee ci lislaam ñu may ko ko ndax kooku mu dem ba mu yàgg mu jékki-jékki génnaat ci lislaam moom miñ may ndaw si mu ne ndax sëy boobu day continuer di dagan wala bi mu génn ci lislaam rek sëy ba moom dafa war a dafa daal di jeex waaw xam ñaari way dañ tamit daa bokk ci sart yi ci lislaam bokk diine wala bokk góor mën naa takk ku ab ahlu kitaab moom hmm. waaye safaan bi mënta am waaw moom ku góor la wax koo xam ne dafa dafa dafa dafa bu fekkee ne ab jullit moo tuub takk soxna soxna soxna jullit la hmm. su tubbee say ba tas ñoom ñaar ku ci tubb rek say ba tas loolu nag lu bari la dañuy gis ci mbokki nasaraan yi koo xam ne day bëgg ak jigéen waaye dañ koy sartal mu tuub bu noppee rek jël na ànd ak moom dem nga xam ne waaye saa bu tubbee rek say ba tas jigéen fu ma nekk na xam ne. wéy di jaaxasoo moom si mooy yàlla waaye nekkatul ab sëy. Hmm, loolu moom lu leer la <laughs> jërëjëf sëriñ bi euh, kii daf ne lan mooy àtteeb euh, ki nga xam ne daal ñi nga xam ne moom sax bi mu koy laaj daf ne ci réew mi mu nekk dafa bari ñoo xam ne daal ay soxnay nasaraan la doon dañuy jekki-jekki rek ñëw ci daayira bi wala ñu ñëw ci jàkka ji daal di wax ne daal dañoo bëgg ñu may leen kii. ñu may leen ku góor kii mu ne ndax ñoom indi gi ñu indi seen bopp te ñëwuñ ci seen ndigalul waajur ndax sëy boobu ñu leen di may ñu leen di may ndax dana dagan wala déet ndax loolu bari na ci àll bi koo xam ne dafay ñëw présenté wu rek daan ne sénégalais bii laa bëgg wala jullit bii laa bëgg ñu may ko ko te duñ consulter ay waajuram mu ne ndax sëy boobu lislaam dana ko daganal wala déet waaw xam nga sëy ci lislaam dañuy wax ne la nikaaxa illa bi wali mhm. maanaam kilifa mënut a nekk ci sëy hmm. jigéen du maye boppam te bu dee kilifteef it dañ cee sart bokk diini hmm. maanaam jigéen ji nga xam ne du ab jullit hmm. kilifaam du doon jullit faaw ñay doon mbokki diineem ñoo koy may kon ku bëgg takk koo xam ne ahlu kitaab la islaam daganal na ko ci ay doonte gënul nag waaye daganal na ko su boobaa nag ñoom ci ay ñoom lay dem ñu may ko faaw mu dem ci baax koy may. Mhm. lislaam mi may mu takk soxna moo ko may buñ ko mayee mu dagan. Mhm. comme bu demee ñoom ca église ba ñuy mayee walla mu wax baayam walla mu dem ca mairie ba fañ baaxoo mayee ñoom suñ ko ko mayee foofu nag ab julit mënta nekk kilifaam ba di ko maye. Mhm. du nekk nekk wali wakiil wakiilu nag. loolu mooy mosu Imaam Malik faaw dañuy dem ca ñoom ñee maye ñoom ci ñu mbokkul dina buñ ko mayee mu wéy. kon sëñ bi moom atte boobu lu mat a bàyyi xel la bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ci àll bi muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira yi wala jawrin yi wala ñi nga xam ne association yi l'islam yi léeg-léeg loolu day faral di am lu bari kon képp koo xam ne tubaab bu jigéen bi ñëw na ànd ak nit bëgg ñu may ko ku góor dafa war a am ndigalul waajuram sëy bi doo ko dagal. du ndigal dong de ak ñoom ñoo koy fas. ak te ñoo koy ñoo koy ñoo koy. Ah, mënta jullit du fas ci masa bu mali bu ñu nekk du fasal yéefar ab sëyam faaw ñoom yéefar yi ñoo koy fas sax far yéefar yi ñoo bokk ak jullit ñoo koy fas nuñ koy fase loolu dañuy joxe seen fase ñoom nañ baaxoo fase rek nañ baaxoo fase rek nañ baaxoo maye lislaam mi maye nga takk ahlu kitaab moo la may ñoom nuñ la ko maye mu baax hmm. ñoom baaxoo maye rek keneen la ko loolu de sew-sew bu mat a xam la tax kon àll bi moom bëri na ay <laughs> yu mel noonu yoo xam ne xam naa ne moom hmm. ah, loolu leer na sëriñ bi waaw ah, kon kon mbokk mi doon laaj loolu laaj boobu leer na ah, kii dafay laaj mu ne eh, ndax am na ay xeet ci ñi sol maanaam xeeti yére yoo xam ne lislaam daganalu ko maanaam yi nga xam ne eh, dafa bëgg nga nga wax nga wax ko yan xeet ci ñi sol mooy yi nga xam ne lislaam daganalut ab jullit mu jaay ko maanaam xeeti yére yi nga xam ne lislaam daganalut ci jullit bi mu di ko jaay yan la waaw lislaam moom lépp lu ñuy loo xam ne ab jullit mu loo xam ne mënu su koo jariñoo njëriñ jariñu gu tegu ci sharia mhm. jariñu gu dëppook sharia dañuy tere ko jaay mhm. daa bokk ci sart jaay na doon loo xam ne mën nañ koo jariñoo jariñoo gu dëppook charia mm-hmm. ci misaal mees yi ñuy jokk kawar jokk kawar dong lañ koy doyee te loolu sam da koy tere kon jokk yi dëgganut jaay ko jënd ko dëgganut mm-hmm. yëpp yére yoo xam ne la mel nga xam lislaam day tere ku ko jëf sol ci gépp anam yooyu yére wari jënd wari su ko jaay mm-hmm. nag euh, day toll day day day wuute ndax am na yére yoo xam ne sol ko ci bitti lislaam di tere mhm. waaye terewut ko ko sol ci biir mhm. yére yu mën a doon rek bu dee wuññi awra wala mu gàtt wala mu yaraax wala mu nangam yooyu sol ko di génn foo xam ne ñooñu waruñoo gis sa awra lañ waaye nit ki sol ko ci biir néegam borom këram bu dee jigéen terewuñ ko su boobaa jaay léegi nag bu la leeree ne ki nga koy jaayee da sol ci bitti moom dëggam ndax yaa moom ci bàkkaar mhm. waaye bu dikkee ñu jaay te gisoo ci moom lu nuru ne kii koy sol ci bitti la sañ ko ko jaay ndax mën na koo jariñoo ci anam gu dagan mën na ko jariñoo ci anam koo xam ne lislaam may nañ jariñoo ko ci mhm. faaw ñu xàjjale ñaari waaye lépp loo xam ne moom amul genn anam guñ ko mën a jariñoo ko dagal loolu dee ko dagal mhm. jërëjëf mara bu dee tux cigarette ci la bokk mhm. cigarette tux dong la jariñ te tux dagal sàngara naan la jariñ naan dagantu sàngara yu mel noonu yére nag daa mu wuute waaye yëpp yére yoo xam ne bu fekkoon te dañu lislaam mayewu ko sol ci keneen masalan yére soie góor suñu ko sol kon waaye nag góor it mën na ko jën di ko jëndal jigéen du jël soxnaam moo tax loolu buñ wax ne waru ko jaay waaye bu la leeree nag ne cig mooy la ko jëfandikoo kon yow ko hmm. bu la leeru nag sañ ko jaay hmm. bu ci mooyee moom mooy gàddu bàkkaar jërëjëf maanaam lu lu mel ne comme mees yi nga wax ndax yi ñuy jokk rek moo moo moo araama jaay wala li ñuy wax pirig nga xam ne lu ñuy këppoo la di ko teggi moom loolu loolu it bu fekkee ne nit ki ci biir néegam la koy sol ndax loolu zina la lu ñuy hmm. taaru la te jigéen ab taaram wuru ko woon kuy borom këram kon koo koy jaay ko xam ne xam nga ne da koy sol di génn ci bitti yaa ngi koy dimbali ci mooy yàlla. donte suy julli da koy da koy kippi sax. waaw loolu benn xaaj da ci maanaam moom waxuñ koy bu julli na moom moom moom ginnaaw li ñuy jokk kawar. Hmm. loolu ci nekk da caa bokk day tax doo mën jàpp. Hmm. ndax day dox si diggante ndox mi bu dee loolu nag xëy na mën nga koo teg nay jàpp. Hmm. waaye li li des mooy ab ziina la ab taar la booy génn ci bitti. kenn ci jigéen ñi koy yow soluñ ko ngir di ko muur ba du feeñ. mbaa bokk ñu di ko yemale seen biir seen seen sox bi borom ko doon. bu loolu kenn du wax ne dañ koy tere. waaye nag génn gi bu la leeree ne kii kat boo ko joxee da koy sol dem ci ay xew ci mbedd mi da koy génne yaa ngi koy dimbale ci mooy yàlla. Mm. gi bu génne di wane taaram mooy yàlla waaye bu la leeroo ne moom mu ngi koy sol ci biir këram biir néegam néegam te kon du du kawar gu ñuy jokk ba muy téye mën a jàpp. Mm-hmm. suba nag mën nañu wax ne mën na ko jaay. waaye loolu nag néew na ci yu mel noonu. taar yooyu yoo xam ne ku koy jël ngir di ko yemale ci biir néegam. Mm. jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne eh, maamoom bi nga xam ne dafay julli ci ginnaaw imaam waaye du yéene roy ci moom te eh, maanaa daal te bëgg naa am yoolu jullig mbooloo mu ne ndax moom dafay laaj ba xam ndax eh, julli gi dana wér ak ndax dana am yoolu jullig mbooloo parce que moom dafa bëgg naa ñëw daal ànd te du yéene roy ci imaam waaye bëgg naa am jullig mbooloo waaye amul yéene ci roy ci imaam bi jiite waaye bëgg naa am teyaabay jullig mbooloo mu ne ndax kooka ñaar yooyu yëpp dana wér walla déet waaw am na lu ñuy tuddee salaatul muhaazaat de wax ne nit koo xam ne masalan daa ñëw ci barab muy jiite ilimaan ji doyu mhm. te ak ñàkk doyum nag du du moom charia la doyut day ilimaan joo xam ci charia mhm. ndax nit it sëñ ta wax doyu na mhm. du nit ki may wax ne diw doyut doyu ma doyut ilimaan charia may wax ne ki doyut ilimaan waaye nañu forcé ko ci bu njëkk jamonoy buur yi am na buur yoo xam ne dañuy taxaw seen i jàkk ne maay jiite te ñëpp xam nañ dañoo dañoo dëng hmm. mën nañu jiite sax te duñ jàpp seen yoon ci yooya yow nag kooko dalul sa xel te boo xëttee nos bi beru mën nañ lu ne mën na la caa fekk fitna mën naa am kooku mën naa def salaatul muhaazat waaye nag julli kenn li julli mooy day ñëw ci jàkka ji ànd ak mbooloo mi lépp lu mu war def dana ko def nag dana jàng faas dana jàngu saar nga xam ne day fexe bi daal jàng yu gàtt nga xam ne dana ànd ak mbooloo ñu sëgg waaye daa ànd ak ñoom rek waaye ci dëgg-dëgg jullit boppam la yor loolu fu xaw yi dagan nañ ndax loolu suturaa ngi ci te te fexe na ba julli na ci mbooloo mi waaye nag la muy ragal ci ci roy ci ilimaan ji mucc na ci ndax bu moom moom xelam dërut ci ilimaan xam na ne kii kat ak kàccooreem àgg na ci bu ko neexee du jàpp te bu bu leeroon ne moom royuti naa mu neppe mën nañ koo tig fir na joo xam ne boo tudd xaj ci dëkk ba hmm. ci anam yu mel noonu dañuy wax nit mën naa def salaatul muhaasara waaye nag boobaa julli kenn la iliman gàddul ko dara li mu war a def lépp ko def dana jàng faat dana jàng saar lépp dana ko def xam day fexe ba rek di ko def ci anam goo xam ne dana fexe ba mat te te te it nag iliman du ko raw hmm. loolu rek mooy tax mu dagan boobaa foofu la ñu ko dagan waaye bu dul koo xam ne da gis ne diineem doyu la sañ ngaa ànd ci julli gi te ndax doo ci yéene roy waaw bu fekkee ne diineem doyu la xam nga jafe-jafe mooy loolu hmm. jékki-jékki ne doyu ma rek loolu laa wax ne charia mooy wax ne kii diineem Mm, sariya moo koy. du man maay jékki-jékki ne diw doyuma waaye nag dañuy gis muy def loo xam ne sariya nangu ko te it am na ci doole joo xam ne boo julliwuti ginnaaw wala mu fës ne do da nga koo da nga da nga da nga wedd na caa juddoo loolu nag ànd ci mbooloo mi da gën beru mm. maanaam ñëw ci jàkk ji rek jàpp ne man boo gisee lislaam di tere ñaari mbooloo daa bëgg jàkk nit ñi nekk benn mm-hmm. daa bëgg lislaam bu ñëwee ci jàkk ji ñëpp xam ne jaamu yàlla la ñu yàlla ak seen bopp ñu teg ilimaan seen kanam ñu di ko roy booloo googu daa bokk jublu lislaam moo tax ko ko yàq ci lu dul sabab waaw waru si ko yàq ci lu dul nit ki jàkk jum dem fekk fa imaam dafa war rafet njort ci moom rek ànd ca julli ga am lu ko leer ci ne matu ilimaan hmm, jërëjëf hmm, bi loolu leer na kii def ne eh, dafay laaj mu ne eh, dafa doon julli takkusaan ba mu yàgg mu dem ci xelam ne eh, julliwul tusbar maanaam timis la doon julli la wax Euh, euh, waaw tisbaar la doon julli ba mu yàgg mu xalaat ci xelam na moom mi kat euh, julliwul tàkkusaan maanaam maanaam jullik tisbaar mhm. la doon la doon julli ba mu yàgg mu teew ci xelam ne moom kat ndeke tàkkusaan la war a julli te fekk tisbaar la yéene mu muy def waaw waaw dagg julli ga bu fekkee julli woon tisbaar mhm. bu fekkee ne am na ci benn rakka mottali ko ñaar sëlmal jàppe ko la saa bu xamee ne lim yéene di ko julli rek bokkut lim mu war a julli am da koy dagg dagg gi nag bu amagut benn rakka day di sëlmal wala mu def luy tegtale dagg na julli mm-hmm. wax wala mu wëlbatiku wala bu fekkee am na rakka li gën mu yokk ci beneen muy naafila mm-hmm. mu dooru sëlmal jërëjëf bokk bi dafay laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafay julli waaye day def saa suy julli rek ay xale ay waa këram dañ koo taq-taq ba nga xam ne dañuy wadd di yéeg ci kaw ginnaaw gi rek ak a mu ne ndax kooku euh, julleem nga dana wér walla déet euh, sallallahu alayhi wa sallam de ay sëtam daan nañ ko war bu julli wax ko nate ko daa wax soxna soxna zeynab radiallahu anha mm-hmm. daana war ca kaw mu julli yéex loolu di wax ne daana wax sax yéex siggi bañ bañ ko laajee mu ne sama doomu mu waroon te bëgguma mu mm-hmm. maanaam mooy may kii te doyalul mm-hmm. war kon loolu wàññiwul dara li ci mat a bàyyi xel rek mooy gone yu mel noonu na doon gone goo xam ne yorul sobe hmm. ndax bu fekkee ne dafa yor sobe boo ko yanoo te xam ne yor na sobe sa jul day yàqu waxtu li mat a bàyyi yu mel noonu di leen defar léegi li xew léegi nga xam ne même bu kuusoo tamit ñu di wutal kuus kuus gone gi buñ ko kuusee mu def dara ci biir kuus ku ko boot di julli te xam ko sa julli baaxul hmm, loolu mat a bàyyi xel julli hmm. boo ko xamul nag julli ga wér na boo sëlmale waaye nag sopp nañ nga baamu boo ko xam xamee waxtu jeexul bu ñu demee ba xam ne yaayam dindi na couche bi nga gis ne sobe am na ci waaw gis ne amoon na sobe bi mu jur bi da ko bootoon te waxtu jeexagul hmm. mu dégg na judduwaat hmm. jërëjëf euh, kii dafay daf daf ne daal moom gis na ci Europe ci réewi Europa yi euh, ay jullit yoo xam ne euh, restaurant yi ñuy liggéeyee maanaa walla hôtel yi wala yu demee noonu gis na ne dañuy raxas ay ndab ak ay kaas waaye gis nañ ne kaas yooyu dafay am ay desiti sàngara yu ciy des ñu koy raxas mu ne ndax ñooñu ab jullit war naa liggéeyee loolu wala de waaw xam nga lislaam day tere jàppulante ci moo yàlla mhm. naanum ñollu bakkaar la mhm. la bu fekkee day raxas kaas yi wala ndab yi ngir ñu ci naanum ñollu wala ñu ci lekk yàpp mbaam mhm. loolu yaa ngi yaa ngi leen la ci bàkk yaa ngi leen ci bakkaar ab jullit du liggéey ci lu mel noonu du liggéey mukk ci loo xam ne day yombalal mooy kotu yàlla moo yàlla lépp loo xam ne yow yaa koy def xam nga lii nit ki da koy dimbali ci dimbali kon daal bépp restaurant booy liggéey mu leer na ne ndab yi ngay raxas dañ ciy togg yàpp mbaam wala dañ day def sàngara liggéey fa daganut raxas raxas dab yooyu raxas waaw hmm, raxas dab yoo même bu la leera ne fi yàpp mbaam lañ fi jaay nga doon fab gardien yi daganut ndax yaa ngi aar mooykat yàlla yi hmm. yëpp dafar lépp loo xam daal dimbale koy mooy yàlla ngir mu mën a mooy la ak julli wul ko daal waaw moom day bëri na fu mel ne réew yi Angleterre moom bëri na liggéeyi gardien yu mel noonu te te ci ci ci centre commercial yi la ñuy la la ñuy garder ak yu demee noonu nga xam ne foofu bu ñu fa dee jaay yàpp mbaam garder fa dëgganul ndax yàpp mbaam dañuy tere ko lekk kon képp ku yombal nit ñi mën a mucc woon ko lekk ci jàmm hmm. yaa ngi sëriñ <laughs> bi euh, kii neen dal dafay laaj ba xam ndax euh, dana daggan ci nit ki ginnaaw bu sangoo ba noppi muy jàpp fekk mi ngi raflewu maanaam li mu bëgg laaj daal mooy ndax ñàkk sol yére ba noppi di jàpp maanaam ngën a gën na wala dagan na wala déet waaw xam nga nit ki buy sangu farata jàpp am na ci. waaw maanaam kenn waxut ne jàpp dañ cee sart sol yére. Mhm. doog yiw nag moom ngay summi sa yére ngir jàpp rek. Mhm. waaye bu fekkee nag nga summi sa yére ngir ah, loo xam ne da da ko laaj. man mhm. ngaa jàpp dool sol sa yére. waaye maanaam summi yére yi ngir jàpp rek nag laa jàpp moom lu ko jar newu fi. xëy na fi nga fi mu sangoo ba noppi noonu sangoo ñàmpeeg saabu ba set. laata muy dem ci sarbet bi di fopp xëy na jàppale ci sens bi xëy na loolu la ci gën a jublu dëgg-dëgg waaw loolu booy sangu farata noonu ngay def benn da ngay jiital ca nga jàpp ba nga mujje ko luñ ci maa doon jàpp am na ci biir te boo ko jàpp dafa def yaramu neen mhm. loolu ak jàpp ak sol yéene la bu mhm, la mhm. xëy na nag jarul nag summi ko ngir jàpp waaye bu fekkee da nga da nga summi soo bëggee jàpp doola soloot sa yére sañ ko jërëjëf euh, kii dafay laaj mu ne lan la ñuy jàng ci ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar daal la bëgg nga wax ko lu ñaar rakkay fajar eh, jàng faatiha rek dañ ko ci jàng danañ jàng faatiha ak saar yu gàtt mhm. ay borom xam-xam nag wax nañ ne ku ciy jàng alam nashra so bëgg nañ ko ci jàng alam nashra ak alam tara kayfa alam mhm. rakka bu njëkk faatiha ak alam nashra rakkab ñaareel faatiha ak alam tara mhm. eh, luñ tajriba la ne baax na lool ci ab jullit di ko saxal di ko def waaye nag waxuñ ne loolu dong lañu war a def waaw daal fatiha képp baax na fatiha ak saar yu gàtt baax na jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bi mooy suñu laaj bu mujj ndax waxtu wi dab nañu kii daal dafay laaj mu ne euh, euh, lan mooy àtteb ki nga xam ne daal dafay faral di jàpp lu bari waaye day faral daal di génn ngelaw lu bari ma maanaa daal day mel ne moom saa su jàppee rek walla waxtu wu nekk ngelaw day génn ci moom ndax euh, lan mooy lan mooy atteem moom moom waa jooju waaw bu fekkee ne sobe muy sobe ngelawal ji am bi baaxoo génn la di am xet wala muy ànd ak kàddu loolu moom bu fekkee da koy def lu bari loolu li ñu tuddee salas la mooy jàngoro ji kii sobe suy génn ci nit ci lu dul wér nga xam ne ngant ak wér dee ko waral bu fekkee da koy dal lu bari kooku li koy sant bu julli jotee na jàpp jàppee ba noppi nag mhm. lu mën a génni day dem julli xay na kooku nag dañ koy wax ne ko bu mu jiite ko loolu darul hmm. kon ilimaan la dootu jiitee ti mbaa bokk bu dee ay morom yu mel noonu yëpp loolu dal leen mën na leen jiite ay bu mu jiite koo xam loolu dalu ko ndax mi ngi julliwaale sobe ngir gànt kon ki amul sobee sobe soosu bañ ko jiite ko moom moo gën moom mu jiite hmm. bu ko jiitee julleem du yàqu euh, waaw ndax ku ci nekk ku ci nekk de du jiite moom moom sañ ta jiite sañ ta jiite de hmm. waaw ndax moom sobe si muy yor ngantama moom waaye du ngàntu lu ñu ci des mm-hmm. waaw moo tax ku yore salas du jiite di julli jërëjëf sëriñ bi xam naa ñu jox la kàddu gi nga tàggatoo waxtu wi daa mel ne jot na waaw kay jërëjëf sëriñ Abdou ñu ngi dellu di sant di sant mbokk yi nga xam ne ñu doon topp jotaay bi yëpp di leen ñaanal jàmm àddina ak laaxira di sàkku ngeen ñu ko ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñ borom mu gën laa defal kàttan gën a yaatal sa xam-xam ak di sant bokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ñëpp ci e, seen seen MKTV bu Xadimatul Xidma TV wala CMT e, di leen mm, wax ne tamit képp koo xam ne am nga laaj booy laaj tamit xam naa suñ jiri moom ba léegi joxeegul numéro numéro e, émission gàggantiku bi waaye numéro bi ngeen doon envoyé laaj yi ba léegi mën ngeen ci envoyé laaj yi muy 77 531 91 98 képp koo xam ne tamit émission bu nekk bëgg nga koo seetaan comme question yi ñuy laaj mooy da ngay ci YouTube euh, MK TV wala CMT TV émission bu bu jàll chaque le 9 wala le 23 da nga ci jot. kon ñi ngi sant it sëñ Abdou Khadir Bousso sëñ Mouhamed Ngom sëñ Ablaye Lo mi nga xam ne mooy dajale laaj yi di leen dig daje ci seen beneen jotaayu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man zalam